lee lu la ñëw parce que dafa amoon ay kii yu mu jël dafa nekk def benn film mu ñëw ànd ak ñaar ñu war ko jël tuuti ci foofu noonu barki alaaj maale bu mu ñëwaatee xam nga kañ la la 11 ci fajar la ñëw pour ñu xool sono bi mu balance te dafa way xelam nekk ci papa ji mu jooy foofu noonu mu génn dem yoonam waxaatul benn yoon ñëwaatu fa mësul gis seen bi ngeen ni après euh, dessin ñuy jël fukki xam nga leen ñu koy waxee Euh, kii bi ñuy jël xaw ma format la xaw ma schéma la xaw ma daal décoration bi ñu jël ci ginnaaw ngeen ni loolu noonu ay marque LGBT la waaye ana croix dessin croix yàggul am ci àdduna ay couleur yàggul am ci àdduna arc-en-ciel ba ko yàlla di sàkk ana waa LGBT yi nañu wax da dëgg rek affaire yaa ngi commencé ëpp de am na lu mu raxaale rek maay wax a yéen dama xam waa Sénégal xam seen mentalité affaire yi rax na. bon par force tey nekk góor jigéen par force na ay ku lox dëgg la na ko waale toog naa sàmba kenn ko indil yére bu yàggul dara ma toog këram instant sàmba ki indi ko benn benn euh, jean boo xamante ne amoon na fii ay design ay kii ay fleur mu ne ko baax na baax na baax na baax na su ma ko waa chet bu rëy bi rek mu ne damaa sonn na mbaq rek tellement que da na yaakaar ne li ngeen wax nii kiiwul ci moom ak a metti muy nitti di gor yore xool ak xëtër dafa metti ragal leen yàlla dafa metti li ngeen ndekkee bu leen di ko xas di ko tuumaal mu ëllëgee ngeen taggati ko ndax ay ay ay jëfam yu baax jeexagul te xaajagul pare li yàlla na mu ci moom kase dina am incha allah macha allah tabarakallah yàlla na mu ci moom dina am incha allah. donc maa ngi nuyu ñëpp di bëgg ñëpp euh, tey nag sama sortie bi c'est spécial damay wax ci li nga xam ni dafa yëngal réew mi jamono yi muy mbiru LGBT euh, par rapport ak concert bi nga xam ni keroog dafa am Médina nit ñi jóg ku nekk di wax ci couleur yi nga xam ni moom lañ fa gis keroog mais dama bëgg nit ñi xam ni tey jii son et boo koy def couleur yooyu ñooy nekk ci ginnaaw. te couleur yi ñu gis keroog ci concert Wally Seck bi du couleuru góor jigéen man nag am na ay sénégalais yu bëri yoo xam ne yàgg nañ toog sax di wax ni maam góor dafa contre Wally wala genre mel noonu parce que man du mu promouvoir insanité mais dëgg dëgg neex yàlla concert Wally bi ku ko xool keroog xam ni dëgg dëgg neex yàlla promouvoirul benn yoon yëfi góor jigéen donc nag détracteurs yi nga xam ne peut-être dañu nekk di profité ci occasion yi mel nii di ci wutaale tour pour jéem a yàq carrière booy bi waali message bu ma koy lancé mooy na jàpp mu dëgër góorgóorlu te tamit bu mënee gën a maytu mu gën a maytu beneen bi ci topp mooy Cheikh Ba mi nga xam ni moo organisé concert bi ñëpp xam nañ ni góor yàlla la nit ku baax la il fait beaucoup de choses pour le Sénégal di ko def pour la Médina organiser benn concert pour bëggal la jeunesse médinoise donc ñi nga xam ni ñoom lay xëccool foofu muy ñoom ay Bamba Fall ak genre mel noonu bu ñu génnee di wax naan ay trente millions yuy jël fay ko ci concert waali day liggéey jeune la. tey jii kuy liggéey sa liggéey dañ ci war a am teraanga di ci faj say soxla donc ku mel ni Cheikh boobu organiser concert bu mel noonu kenn xamul. Sénégal asalaamaaleykum waa diaspora asalaamaaleykum waa àdduna eh, lii nag tey laa ko mës a def c'est par rapport ak suñu doom Wally Seck parce que coow li dafa bari quoi vraiment te dama laajte am ay sources yu leer nañ que ni. Wally sekk bi muy tëgg concert bi matériel am sax yóbbuwu ko fa la fekk matériel fa la fekk lépp télévision sax xam nañu au temps bu panne technique bu mosaan a am dañuy génne benn bande boo xam ne day am ay couleur yu bari mais ñuy wax lu Wally def ñu ne couleur arc mais moom ñun ñooy bàyyi ñoo ko jur ñoo ko njëkk ci li ñuy def ci la juddu ci lañ ko ngénte te kenn mësuñoo jiñ lu mel nii kon moom yaruñu ko ci xamul xamu ko tey def ko te ku ma xam-xam ne bu fekkoon ne loolu dafa am man duma génn pour défendre Wally parce que sama diggante yàlla nag moo ma gënal lépp mais lii dafa bari coow li dafa bari lu Wally def j'ai même l'impression que ni dañuy yónni ay nit rien que pour ñu du ko perturber mais c'est l'homme du moment yàlla moo ko defal il faut ñu accepter il faut ñu nangu ko ne yàlla mooy sàkk waxtu wu ko papaam way na ko bés bu nekk am na luy xew at mu nekk yàlla moo ko fi teg nañu ko nangu te bañ di ko perturber parce que wax naa ko ci concert bi passé coon dem na waaye ñun ñoo ngi fii te nekk suñu suñu deret la genn golo nag gudd na waaye loo ca laal borom yëg ko nañu arrêté li ñuy def kii xale la bu nekk ci yoonam di dem bu fekkoon tey gi dafa def naka sudul noonu non ñun am nañu fulla am na ñu mag bu toll ni duñu wax mbaa bu ñuy wax dañuy wax ak moom xamal ko ni arrête mais lan moo fi jor lan moo fi ñor nag bañ koy màcc moom lu mu def rek ñu am fu ñu ko féetale mooy il est artiste il est populaire d'accord xëy na siiw du jàmmi borom comme ni ko coon waaye mais nag trop c'est trop il faut que ñu arrêté Wally n'est pas de am na ay mbokk am na ay dëkkandoo te it ñi ngi gërëm sénégalais yi nga xam ni ñi ngi koy défendre ñu ngi xam ni lii euh, am na lu nekk ci ginnaaw quoi il faut qu'ils arrêtent parce que Wally tam du ragal Wally du ragal la ah, parce que kenn kenn kenn kenn kenn yaru ko ci ragal bu tooñee dañaan ko arrête da tooñ da nga juum mais nag il faut que ñu arrêté vidéo bi nag xëy na man maa njëkk a yeewu waaye Assane Ndiaye bu yeewoo Keba bu yeewoo Mapenda ma nga France dina def vidéo ñun ñëpp dinañu jàkkaarloo ak ñoon yi nga xam ni ñoo jóg pour faagaagal ko. sam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñun ñooy wax ne ñun askanu waal yi ndax war wax dafa jot ndax boobu ba léegi yéen a ngi wax ñu leen bàyyi leen ak seen sabo ñun suñu askan amul góor jigéen suñu mbokk amul kenn kuy jur góor jigéen kenn jur ku rusul yàlla rusoo yonante bi jëkkëram gi wàcc liggéey barka démboo Njaay muy jooy jëkkëram gi njabootam gi ngeen tong-tongal leen bunduxatal leen ku ci juróon waale doo doxalee nii waaye mu waale kër maamam amul góor jigéen ndax maamam représenté na lu nekk ci Sénégal ku xamul Baara Diouf yi dégg nga ko ku déggul Alla Diouf Ndiaye Koura dégg nga ko diggante juróom-ñaari penc yi fukki penc ak ñaar kenn ku ne mënut a taxaw ne wàllu du sama sët wala du sama jarbaat ñàkkal dañuy ñàkkal seen bopp fulla ñàkkal seen bopp fayda te duñu te duñ ko mës a réussir loolu dama bëgg mu leer seen bopp yi ñëpp ñi ànd ak moom nag ñu leen di gërëm di leen sant gis nañ ñu koy défendre ñëpp ñi nga xam ne ñu ko bëgg sopp ko te Wally bu doon bu doon 10 millions tey jii 9 millions yëpp moom la ñu àndal million bu xëy na ñooy sikki sàkk ñooy def seen yëfu doomaraam yooyu ak seen yëfu imbécile yooyu mais kii xoolal du tàppeg te du ragal waaw eh, salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal eh, man Mor Dior may def vidéo bi parce que doom pat sax si sot la bokk parce que mbokk alalu yàlla la wàllu suñu doom la suñu lépp la mais Sénégal trop c'est trop nit ku nekk sañ su la nit ku nekk tey bëggoon ngaa jur doom ju mel ni Wally wala nga am mbokk mu mel ni Wally mais un jeune Wally di dimbali doomu aadama yi di def lu baax Euh, yor micro di woy bu bëgg bëggal Sénégalais yi nit ñi di ko adressé n'importe quoi fu nga ko teg walla di Baay Faal walla juddoo ci famille bu baax am baay ju baax am ndey bu baax am mbokk yu baax mbokk yoo xam ne liggéey ci yoonu Sëriñ Tuubaa nag loo xam ni macha allah ay maamam dañoo liggéey ci yoonu Sëriñ Tuubaa ba am gërëmal Sëriñ Tuubaa nit ñi nag nan xam ne Wally am na ay mbokk Wally suñu doom la duñ seetaan ñu koy adressé n'importe qui papam dem na nag mais ay mbokkam ñi ngi fi de ay baayam ñu ngi fi nit ñi nag nañ ko bàyyi kii xale bu ndaw la di liggéey def fi Sénégal loo xam ne kenn defu ko fi barki Cheikhul Khadim woykat yu bari ñu ngi fii ah li Wally di def nii tey ñu ko jiitu ci musique bee ngi fii mënuñu ko moom mu nekk un jeune tabe baax nangoo dimbali doomu aadama ñu koy adressé n'importe quoi nit ñi nag